yéene kaay gi la nga xam ne moom lañ leen di toppee association de malfaiteurs maanaam lëngoo di def ay ñaawteef ba pare nag bëgg a lor bakkanu doomu aadama blanchiment de capitaux yéene kaay gi na en mbir mi daal la nga xam ne moo nekk ca doy na waar génn xeetu doy waar goo xam ne fu ko natt daan na koy passé yéene xëy duñu xibaar naan ñu li nga xam ne moom la parquet bi sàkk woon ngir ñu mandat dépôt mbooleem ñi nga xam ne teg nañ Macky Sall ni ki démb amal na conseil présidentiel sa jam ñaajo daan nay teg programme xëyum ndaw ñi yéen a kaay gi de la Soleil nee na njiitu réew di Macky démb wax na lu leer nañu ñi nga xam ne ñooy ndaw ñee nee na leen nag mbir mi lu mu jafe-jafe ak nag coono yi lu mu bëri bëri état bu Sénégal du leen mosa wan nekk maa ngi seen wet njiitu di Macky démb neexal na xale yi ba xolam sedd ndax nee na lu toll ci 450 milliards dina ko génne nee na ndaw ñi dégg naa leen te déglu naa leen seeni jafe-jafe a saafara du nekk daar daar waaye nag dinañu si a kaay gi nee na lu jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi njiitu di président Macky ni ki démb wax na ak secteur privé national bi nee na nag secteur privé bi am nañ si rôle bu mag boo xam ne war nañu ko see mën a joué kaay gi di réew mi quotidien nee na si ñaar fukkeelu édition bi nga xam ne forum du premier emploi te waa MEDES doon ko def yëkkati woon nañ fa wax na ne mbooleem yoo xamante nekk dina tukkee ci conseil présidentiel bi ñoom dinañu si bopp ku tëx ndax njiitu réew mi di Macky Sall ni ki daan nay wax ne secteur privé bi nag maa ngi leen di jaajëfal di leen di encouragé ba pare nag di leen di woo ngir nag ñu ñëw jàpp si bu baax a baax ndax am na nañu suróol boo xam ne ñoom ñoo ko si war a joué ñoom président ba ñu Diop Assane Samb xëy jël xalima ma nee ndaw ñi si boppam du ñoom ñoo mën a wutal seen bopp liggéey waaye nag secteur privé bi moo leen war a mën a wutal liggéey njiitu réew mi di Macky Sall nee na secteur privé bi ak gouvernement bu liggéey mais dans la main yéen a kaay gi nee na njiitu réew mi di Macky daan nay dànk dànkaafu ñi nga xam ne ñooy gouvernement bi ndax nee na loo xam ne santaane na ngir ñu def ko bu ñu ko deful maanaam tolérance zéro journal bi nee na Macky dafa yoroon aw yatam akub karootam xale yi nag Macky Sall di leen njaay ceeke di leen jox karoot ñuy lekk waaye nag yat wi Macky Sall di si dànkaafu ñi nga xam ne dañu leen di sant ay liggéey maanaam ñu layaam-layaamal journal bi du l'Observateur xëy na wax ci mbiri Ousmane Sonko ndax nee na Macky Sall démb na ca yéen lu jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi Macky Sall démb nag génn na karoot bi ak lu toll si juróom benn fukk juróomi junni ay ndaw yoo xam ne danañu leen recruter maanaam ci weeru mai wii nga xam ne moom la ñu dëgmal dina am ay centre de formation yoo xam ne danañu ko tabax yéene kaay gi di lii quotidien nee na njiitu réew mi di président Macky Sall lu toll ci quatre-vingt-onze ci ay promesse maanaam ci ay dige yoo xam ne Macky Sall dige na ko ni ki démb maanaam adduna bi jamono ji Macky Sall bokk na si ñi dàq dige yéene kaay gi di Les Échos nee na nag fukk ak ñeenti région yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ndaw ñi fenn fu nekk génne nañ fa ni ki démb jàkkaarloo ak Macky Sall maanaam béccil ko li nga xam ne mooy seeni cahier de mars seen i ñaxtu ak seeni i jafe-jafe ña maanaam boo xam ne toll na si fukk ci ay waxtu yoo xam ne dox na diggante njiitu réew ak Macky dox na diggante njiitu réew ak ndaw yi nekk ci réew mi yéen a kaay gi du l'observateur njiitu réew mi di président Macky Sall nee na manifestation yi nga xam ne moo amoon ci réew mi mbir mi mënoon naa gën a jéggi dayoo bu doon Sénégal nekkul réew moo xam ne réewum démocratie la waaye nag li nga xam ne moo fi amoon dootuñu nangu mu am fii te kenn mënut a taal réew mi te képp koo xam ne yaa ngi fi nekk jàpp ne état bi dafa feebal loolee erreur la gi du tout cas conseil